situation du pays. Jusqu'à présent, on n'a pas encore de retour. Qu'est-ce qui a changé Auparavant, les puissances étrangères établies au Sénégal mmh. rencontraient et discutaient librement avec toutes les parties prenantes. Mmh. Mais on a l'impression que depuis quelque temps, j'ai l'impression que c'est peut-être parce qu'il y a un chantage sur le gaz particulièrement, sur le pétrole et je ne sais quoi. C'est comme si les gens avaient peur de rencontrer et discuter l'opposition Et c'est pourquoi nous considérons que ces rapports vont dans le bon sens, de même que le rapport de l'Union européenne sur le processus électoral, qui est un rapport en charge contre l'État sénégalais et ses pratiques frauduleuses, les pratiques pour euh, empêcher les candidats de, de, pouvoir candidater, le parrainage, les pratiques liées à, euh, la rétention sur le fichier électoral, les pratiques liées à la rétention des cartes d'électeurs pour les primo-votants notamment, et beaucoup d'autres pratiques. Et c'est sur toutes ces questions-là que nous avions souhaité, nous, pouvoir rencontrer les différents organismes, euh, aussi bien dans le cadre bilatéral que multilatéral, et échanger. Non pas parce que nous voulons leur implication directe, mais parce que c'est des partenaires qui participent par le financement et par beaucoup d'autres moyens à ce qui se passe au Sénégal. Et sur le plan bilatéral également, Nous pensons que les choses vont dans, la, dans le bon sens. Nous avons tous reçu des vidéos sur les débats qu'il y a eu la semaine dernière à l'Assemblée nationale française en commission relativement à ce projet de loi sur l'entraide judiciaire et sur l'extradition. Voilà le genre de débat que l'Afrique d'aujourd'hui veut entendre. Voilà le genre de débat et le genre de préoccupation qui rassure les Africains. Parce qu'on a tendance à dire que nous devons rassurer les autres, mais c'est les autres qui doivent nous rassurer. Parce que dans les relations que nous avons entretenues avec le reste du monde jusqu'à présent, l'Afrique a été la grande perdante. C'est ça la vérité. Et l'Afrique a plus besoin d'être rassurée que les partenaires ont compris son discours. Cette nouvelle génération politique, qui n'est pas une génération d'âge, mais une génération d'opinion qui transcende toutes les générations d'âge, qui est très présente dans la diaspora, pour ne pas dire totalement majoritaire dans la diaspora, qui est très présente et majoritaire dans les élites africaines, dans cette formidable jeunesse africaine, étudiante, universitaire, comme ouvrière, comme dans tous les segments, mais qui est présente de plus en plus dans toutes les masses africaines. et qui comprend ce qui se passe, qui est connecté au monde, qui suit. Il est temps que le reste du monde comprenne qu'il a désormais affaire à des peuples majeurs qui ont fait leur mieux et qui comprennent où se trouve leur intérêt. Et ce pas en mettant des présidents à la République, en leur donnant des blancs-seings et en fermant les yeux sur leur exaction contre leur population, dès lors que ces présidents à la République satisfassent à, à, à, aux intérêts de ces, de ces puissances étrangères qu'on qu pourra continuer à perpétuer une relation serbe. Et le débat qu'il y a eu à l'Assemblée nationale française, d'abord par rapport au projet de loi lui-même, les préoccupations des parlementaires français, que ça ne soit pas un instrument politique pour persécuter de l'opposant, pour persécuter toute opinion divergente de la société civile, des journalistes, des euh, artistes et de toutes les composantes, que ce soit sous le contrôle du juge et non pas simplement des autorités politiques, mais également la préoccupation de ces députés sur la situation de l'état de droit au Sénégal, la persécution des opposants, les emprisonnements arbitraires, la velléité d'un troisième mandat. Que ces débats-là puissent se tenir à ce niveau rassure les Africains, rassure les Sénégalais et nous prouve que Nos partenaires sont en train de comprendre le discours que nous leur tenons. Il n'a jamais été question d'être contre X ou Y, mais il faut qu'ils comprennent qu'à chaque fois qu'ils fermeront les yeux sur les exactions, sur les manipulations constitutionnelles, pour que les présidents de la République se perpétuent, à chaque fois qu'ils fermeront les yeux sur ces pratiques, ils alimenteront un sentiment anti-français ou un sentiment anti-occidental. Ce n'est par rapport aux Français mais c'est par rapport à la politique de l'État français. Les Sénégalais n'ont pas de problème avec les Français. Les Sénégalais n'ont pas les problèmes avec les Américains ou les, Européens euh, ou les Allemands. Ils ont un problème avec des pratiques d'État, des politiques d'État. Sur le plan, on ne peut pas dire, dire que les, les, nos partenaires sont responsables de tout ce qui se passe ici. Loin s'en Ils ne sont pas responsables des détournements de deniers publics. ne pas, ils ne la malgouvernance. Ils ne sont pas responsables des mauvaises options en matière d'investissement. Ah ça c'est notre Mais sur le plan économique, ce que nous demandons, c'est que les relations soient gagnant-gagnant. Aujourd'hui, c'est gagnant-perdant. Et ce qui se passe avec le terre en est une illustration. Je rappelle qu'en 2017 déjà, en tant que député, j'avais adressé question écrite au gouvernement du Sénégal. Et j'avais dit dans cette question écrite qu'en récapitulant les contrats, j'avais vu un écart de 224 milliards par rapport au montant qui était annoncé pour la construction du terre. Je ne parle pas des questions d'opportunité. Aujourd'hui, nous avons un outil qui est obligé d'être sous de l'État sénégalais. On dit que oui, a décidé de subventionner pour que le prix soit abordable. Et pourtant, on lâche la subvention sur les produits pétroliers, qui est beaucoup plus vital pour les populations. Mais là-bas, on subventionne parce que ça doit bénéficier à des entreprises françaises. Et jusqu'à quand on sera dans, ces relations léonines, au détriment de nos peuples, on pompe tout ce qu'on a, le peu qu'on a, pour des infrastructures dont le rendement est douteux, et on nous dit que voilà, c'est un bon partenariat pour le Sénégal, et nous l'acceptons. Même en France, des voix s'élèvent pour dire que ça, ce n'est pas bon, il faut arrêter. Parce que celui qui était PCA du Terre, qui est un franco-sénégalais, un français, qui depuis quelque temps a une nationalité, vous verrez que l'article du Figaro en a parlé, avait dit que ça, c'est pas bon pour le, pour le Sénégal. Il a été tout de suite remercié. Après, on dit le terre nous appartient, le terre nous appartient. Ce qu'on demande, c'est la réorientation, le réajustement le rééquilibrage parce que nos peuples ont droit au même bonheur, à la même prospérité, à la même qualité de vie que les autres On ne peut plus continuer à subir. Et ça, c'est pas être contre X ou Y. Et c'est rassurant de voir ce genre de discours. Nous encourageons à examiner cette voie. L'avenir de la coopération entre l'Afrique et le reste du monde, c'est pas la coopération telle qu'elle était conçue en 1980. à 1975, en 2000 même. Non, non, non. Les Africains ont compris et veulent se réorienter. Et je rappelle que déjà, en 2018, quand je présentais mon ouvrage euh, Solutions pour le Sénégal nouveau, après le chapitre sur le franc j'assume toujours mes positions sur le franc CFA, que nous avons besoin d'une monnaie souveraine conçu par et pour les Africains, adapté à nos préoccupations, à nos, à, à, nos, besoins, ajustable par rapport au contexte international, et non pas de cette monnaie telle qu'elle existe actuellement. C'est notre conception. Mais à la fin de ce chapitre, je rappelle ce que j'avais dit. Et c'était certainement prémonitoire. Je disais, certains adversaires auront vite fait de nous, de nous taxer d'antifrancisme primaire. Loin s'en faut. Désolé, je n'ai pas mes lunettes, mais vous comprendrez. Loin Nous sommes d'ailleurs ne serait-ce que pour le principe d'une exception culturelle face aux velléités unilatéralistes d'un seul pôle pour le renforcement, le raffermissement et l'affirmation d'un bloc, bloc, bloc francophone fort et homogène dans sa diversité, mais fondée sur des rapports plutôt gagnant-gagnant que de domination dont nos pays n'ont que trop souffert. Nous souhaitons que la France entende et comprenne notre message, celui d'une nouvelle Afrique portée par une nouvelle génération politique, citoyenne, artistique, intellectuelle, qui n'aspire qu'à plus d'égalité et d'équité dans nos rapports avec elle, pour le progrès et le développement auquel aspire légitimement nos peuples, nos peuples. Si elle l'entend et le comprend, cela sera salutaire pour nos relations séculaires. Sinon, elle s'achemine vers une rupture brutale et inéluctable avec ses anciennes colonies qui s'orienteront définitivement et durablement vers d'autres partenaires privilégiés. Ça, c'était en 2018. Si la France avait entendu ce discours, ce qui s'est passé au Mali ne se serait pas passé. Ce qui s'est passé au Burkina ne serait pas passé. Et ce qui risque de se passer dans beaucoup d'autres pays ne se serait pas passé. Et c'est ça le message de Yehu Askanou, que nous adressons au-delà de la France à tous nos partenaires. Nous voulons d'un partenariat solide, mais bénéfique à toutes les parties, mais pas d'un partenariat de domination. Et je conclus par cela, ce que nous avons vu depuis quelque temps nous rassure que les partenaires l'ont compris et nous disons à ces partenaires-là de, de tenir un langage de vérité à Macky Sall et à son régime. Qu'il ne peut pas réussir le pari qu'il s'est fixé. Qu'il ne peut pas avoir un troisième mandat dans ce pays. Le Sénégal n'est pas la Côte d'Ivoire. Le Sénégal ne l'acceptera pas. Qu'il ne peut pas effacer des réalités politiques dans ce pays. Autant on lui connaît qu'il est une réalité politique, autant il a en face de lui des réalités politiques, sinon aussi plus fortes, du moins aussi fortes. il ne peut pas les effacer en instrumentalisant encore une fois la justice. Le seul problème de ce pays désormais, ce n'est pas l'antagonisme entre les, partis politiques, mais c'est la justice sénégalaise qui a accepté d'être un instrument au service de la politique, un instrument au service d'un régime. C'est le seul problème. Si la justice acceptait d'être une justice impartiale au-dessus des contingences politiques, il n'y aurait plus de problème au Sénégal. le seul problème du Sénégal c'est un homme un général qui continue à donner à Macky Sall des assurances qu'il peut mater tout le monde qu'il peut écraser tout le monde qu'il peut marcher sur des cadavres un général qui dit à Macky Sall demain si on me dit d'aller cueillir Ousmane Sonko j'irai le cueillir quoi qu'il en et Macky doit arrêter de d'écouter ces pyromanes dans tous les régimes qui sont tombés d'une certaine manière et nous ne le souhaitons pas pour on été instrumentés, ont été motivés, ont été poussés vers l'abîme par des gens civils et militaires qui leur tenaient ce genre de discours. Il est temps qu'ils reviennent à la raison et qu'ils comprennent qu'il n'a pas hérité le Sénégal de ses parents et qu'il ne transpénétrera pas le Sénégal à ses enfants. ci tënk rek ci wolof fi may daanelee mooy dalal xelu Déthié mon frère bi ma nee jaruñu ciy wax dama bëggoon conférence de presse bi mu doon conférence de presse boo xam ne daf ñuy permettre ñu delloo si wax ji ci l'essentiel parce que loolu dafa am solo mooy ñoom saa suñu demee rek ba sës seeni tooxi dooni feeñ sénégalais yi gis li xew dégg ngeen démb li xew ci terre bi sénégalais bu ñu xamoon li xew ci terre bi yëpp xam nga gars yi itam ñu ne parce que sénégalais yi léeg dafa neex a nax damay ragal ni niñ doon naxee suñuy maam nee nañu tubaab bi bi mu ñëwee bëgg a am jàpp jàpp suñuy maam ay jaam pakoti yi la leen doon naxee pakoti yi pakoti yi mooy lan ay seetu la doon andi ay yu kenn xamul seetu lañ doon jëndee jaam dafa mel ni ba léegi loolu moo am tubaab bi ni ñuy naxee mooy day ñëw rek jox ñu benn affaire ñu naan wii gis ngeen suñu teer bi gis comme teeru Paris mais terre boobu naka lañ ko amee lan la dikkee Sénégalais yi est ñoo ko moom kan la kan kan moo ci ëpp lu mu ciy gagné fi mu toll nii loolu suñ ko laajee suñu bopp rek ak luñ ñu mënti àndil les premières questions yi ñu war a laaj mooy lii nekk lañ ko amee est-ce que baax na ci réew mi waaye bu dee liñ la defaral yaa ngi dem di ñëw waaye la ciy dugg la ciy la ciy feeñ ci njëriñ yëpp tugal la jëm ñoo ko moom ñoo ci am bénéfice. ba pare nguuru Sénégal obligé di ci dugal xaalisam noonu la amee ci air air Sénégal bi ngeen gis su air Sénégal nguuru Sénégal day obligé di ci dugal xaalisam budget bu ñu nee subvention xam nga mooy lan mooy suñu lémpo man ak yow ak keneen moom lañu ñuy ci dugal pour TER bi mun a daw waaye ñoom tubaab yi seen société yi ñu am euh, nu mu tudd ser SNCF ak li mu créer fii société bi mu créer fii SETER ak ñoom seen ñoom du ñu ñàkk mukk su jaree ñu jël suñu lempo di leen fay ñoom dañ leen di fay xaalis mais du ñu ñàkk mukk loolu mooy teer bi ngeen di dégg noonu lay amee ci BRT bi Air Sénégal noonu la amee leneen leneen noonu la amee musiba yi fi am suñ ko doon wax duñ ko jeexal moo nem de 2017 laa bind gouvernement boobu député la ne leen TER bii ne ngeen 500 xaw ma ñaata milliards la man de ma defee sama calcul dina ëpp mille duñ ma tontoo ñoom nangu nañ ni ëpp na 500 milliards dinaa publier seen réponse kon ñu def alal gu toll noonu ba pare ñu ñëw naan est-ce que moom nañoo moomuñu waaye li am solo ba leer mooy Sénégal gañewu ci dara waaye day jël alalam di ci dugal tubaab bi ñoom di yóbbu xaalis bi rapport Cour des comptes baa ngi fi dinañ toog ba si yàgg ñu ne est-ce que sénégalais yi am nañu capacité d'indignation parce que pour moins que saa waay nit ñi nit ñi génn ci àdduna bi. tey réforme de retraite la ñuy def France gis ngeen ñaata nit ñoo génn France ci sedd bi sedd bi fa nekk ñaata nit ñoo génn dem manifester des millions nee nañu retraite beeg dañuy réformer de waaw léegi yow dootoo dootoo liggéey 60 ans waaye dañu bëgg nga liggéey 63 ans xaw ma France yëpp génn tey bi may xëy maa ngi seetaan journal 2 millions 500 mille personnes ñoo génn Grande-Bretagne nee nañ dañoo bëgg ñu yokk seen salaire ndax ñoom waxuñu sàcc nañu alal réew mi foofu ku fa sàcc alal réew doo doo doo yendu doo yendu fii nag lu ne mën na faa xew sénégalais dañ koy waxtaan ñaari fan ñetti fan mbir ma jaare foofu Macky Sall daal di créer ay contre-feu damay yóbbu fii Ousmane Sonko damay def lii ñëpp nekk ci loolu moo tax bi may wax dëccee conférence bi dafa amoon solo pour ñu fàttali sénégalais yi yenn affaires yi waaye tekkiwul ni dama bañ ñu wax ci lu jëm ci samay mbir li jëm sama mbir tey la gën a tàng la ma wax ci Kër Massar moo fi nekk ba léegi ñëpp a ngi préparé quartier par quartier kër par kër Macky Sall li ma wax rek bu bëggee jàmm dina ko am waaye bu bëggee safaan bi dina ko am parce que ñun duñu duñu joxe suñu bopp li may wax toujours xale yi ku leen ne da ngeen bëri fitna dem leen toog muñ leen nangu leen ñu tëj leen kaso bëggu leen bëggul réew mi ku leen ko wax bëggu leen bëggul réew mi ku leen ne waaw ku fi dee yaa perte bëggul réew mi Macky Sall bu bëggee jàmm ñun jàmm lañu ñu woote ndax xeex yombul xeex dafa metti jàmm ci la lépp xaj kenn bëggul ku la dóor kenn bëggul ku la gaañ kenn bëggul ku la rey kenn bëggul li bokk ci yow am xoosu xoosu sax ci yaramam waaye chaque jour dama ne yonent bu jëlee jaasi xeex dafa fekk mu sës ndax moo ñu gën te moo ñu gën a bëgg jàmm kenn gënu koo bëgg jàmm jàmm dañ koy dox te lay dox jàmm mooy ñaar ñu séq ñooy dox jàmm waaye Sénégal ngay gis ki yor nguur fii léegi mu ngi yor ay kurpeñam di dóor kenn du wax moom kay sàllaaw muñ leen rek léegi mu jeex waaye ñi muy dóor bu ñu nee sonn nañu ba ba ba ba jóg rek ñépp jógandoo nag bu leen fi fitna dëkk bi nii ak nii ak nii ku fi fitna nangam nangam gis nga diine gi ñun ñëpp xam nañ ko am na luñ ci xam as tuut peeguñu koy waaye am na lu luñ ci xam as tuut diine ci boppam la may digle fu mu ne génne leen seen kër ay ay alxuraan daf ne génne noonu seen kër dàq leen xeex leen ci kaw lan bu dee dañ laa xeex yow kon légitime défense dañu xam légitime défense sañu xam doo jóg rek dem songi nit ñun mosuñoo song nit duñ ko mus a def mosuñoo dóor nit mosuñoo saaga nit te ñoo ngi ñuy dóor ñoo ngi ñuy tëj ñoo ngi ñuy saaga ñoo ngi ñuy rey ba barki dem mortala jàpp nañ ko bis bu ne ngeen dégg jàpp nañu nit waa ñi génn taxaw fii ne rey leen Ousmane Sonko ana ñu ñu ngi si dëkk bi di dox mm-hmm. injustice bi ne ci dëkk bi dafa weesu waay ba pare ñu bëgguñu koo teg ñun saa yoon ne déedéet rek ñëpp bëgg laa joxoj gone yi laay waxal bu leen déglu loolu dañoo toll foo xam ne la ñuy la nekk en jeu ci fukki weer ak ñaar yi des la nekk en jeu mooy ñu jëlaat suñu destin en ñu jëlaat suñu réew coowal sàcc xaalis jeex fi coowal nangu suñu alal yóbbu bitim réew jeex fi coowal détournement jeex fi coowal clientélisme jeex fi ñu jël réew mi teel ko suñu bopp jël alal réew mi delloo ko ci biir réew mi loolu mooy suñu discours depuis bi ñu duggee ci politique ba léegi ku ñu naw loolu la ñu nawee fukki weer ak ñaar a ci des pour ñu egg ci loola te waxuñu waxu caaxaan de billaahi buñ ci eggee ba yàlla def li muy def ngeen xam ni Sénégal moo noonu nañ ko soppi bu yàgg yàgg yàgg bu dee yéene bi am na loxo yi set na te bëgg-bëgg ci réew mi am na moo tax nag yeewi askan wi ñi ngi réfléchir bu soobee yàlla fan yi xam nga ba ñuy dëgmal élection législative dama annoncé woon ne dinañu taxawal coalition bu gën a rëy ci opposition politique bu Sénégal mës a xam defoon nañ ko ndax Sénégal musul am configuration bi ci assemblée nationale mi ngi doog am may wax nag ni dinañu réfléchir benn taxawal benn rassemblement des forces vives de nation yeewi askan wi doon na ko déjà waaye exclurul kenn acteurs yëpp yi nga xam ne tey dañoo fas yéene taxaw jàkkaarloog Macky Sall ak régime am ne lii nga bëgg du fi amee ñëpp dinañu waxtaan ak ñoom taxawal benn cadre boo xam ne tey Sénégal kenn du kenn mësut gis lu toll noonu ci rassemblement des forces vives de la nation wax ma rassemblement de l'opposition de des forces vives de la nation te nag kenn duñu détourné ndax xam nañu seeni pratique déet bul wax ak kii moo la waxoon ni bu wax ak kii moo la saako bul ko wax kii moo la tëjoon kaso déedéet ñun réew mi moo ñu ñor suñuy jëmmu bopp amatul solo ñu ngi ciy réfléchir ñu ngi ciy liggéey te bu soobee yàlla ci fan yi di ñëw dinañ ci dellu si waxtaan a yéen ci lu gën ñu ngi leen gërëm leen sant asalaamaaleykum wa rahmatullah. ngeen jëf président